waaw comme ni ma ko waxee sànq rek maa ngi tudd Abdoul Aziz Niang bokk nekk maa jiitu tey ñu wax major promotion huitième promotion brevet élémentaire maintenance aéronautique mais si biir huitième promotion dafa am école mu ngi door a former première promotion contrôleur aérien man ci foofu laa bokk yàlla nag def na man maa nekk major comme lu ma ko doon wax je le prends avec humilité maa ngi remercier suñu commandement bi di remercier suñu encadreur ak sama promo yi nga xam ba muy métti ñoom ñëpp géré nan ma on a pu ñu lépp ñoo ko dundandoo ensemble di remercier aussi suñu professeurs yi ba muy métti ñoom ñoo ñu doon jàppale ñoo ñu doon taxaw di ñu jox xam-xam te xam-xam kenn munu ko fay waaw maa ngi wax ne nekk première yomb na trop waaye maintenir ko dafa jafe donc ñun dañu war a wane na comme école armée de l'air gars yi nee na c'est la bonne crème comme ni ma ko waxee woon donc ñun loolu dañ ko war a wane dañu war a wane ne donc pro bonne crème lañ génnee waaw ñu ko war a wane lu ñu jàngal ci suñu formation jàngal nañu affaire wu domaine aviation comme man sama domaine contrôleur boo gisee avion yu circulé si àdduna bi bari na trop bari na trop te du ñu gisante kan moo leen di gérer mooy contrôleur bi mooy tax ba avion yi du ñu mbëkkante nit ñi di voyage di def donc dafa nekk métier boo xam ne nag ñu bëri xamuñ ko aussi jàngal nañu suñ suñ territoire sénégalais dugg ku nekk fi war a ñëw dugg ñun war nañ nekk en mesure armée sénégalaise xool suñu territoire kan moo fiy traversé ak kan moo si dugg pour plus de sécurité pour wane ne ñun waa réew donc armée de l'air mu ngi dem ci kaw mu mu ngi mu ngi leen ñaax na suñ tëddee nañ nelaw parce que ñu ngi leen di surveiller suñu suñu territoire ñooñu nag ñun lañ si yaakaar donc ku la yaakaar sas na la dañu war a góorgóorlu war a gën a góorgóorluwaat ci suñu bopp war a xam ne ne tamit heure bu réew mi soxlaa keneen soxla day ñàkk ñun réew mi moo ñu fi tax a toog incha allah dinañ ko matale bu soobee waaw <coughs> man man ngi tudd Ali mbay Mbaye polinaire Apollinaire nga man maay colonel bi bi jiital suñu école fii école bi <clears throat> ay technicien yuy liggéey ci euh, avion ñoo ñoo ñoo fiy génnee daal <clears throat> léegi formation bi ñaari pàcc la dafa am premier pàcc bi moom mooy <clears throat> ñu am ñun ay soldaar yu xarañ yuy génnee fii mën a jiital ak jiite yeneen soldaar yu gën a ndaw donc ay sergent ñoo fiy génnee beneen pàcc bi mooy bu nekkee sergent dañuy seen liggéey ñaar lay doon dañuy liggéey militaire bi yoo xam ne da ngay jiite ay soldat beneen bi mooy nga mun a defar avion bi fexe ba avion bi lu ko dal mu ñu mun koo defaraat bu avion bi demaat naaw ba pilote bi fii si naaw ñu mun a nekk ci ay kaaraange yu baax daal voici un peu le travail des gens. léegi bu ñu jógee fii promotion bi ñaari ñoo ci am ñenn ñi ñoom ñoom ñooy defaraat avion yi pour que ñi mën a naaw ci ay avion yu yu baax daal beneen pàcc ñoom ñooy. contrôleur aérien ak ñoom dañuy nekk ci aéroport militaire yi ñu am pour que avion yi nekk ñoom ñooy wax kan mooy jàll kan mooy naaw nan lay naaw ak yooyu ñoom ñooy joxe autorisation pour waaye naaw <coughs> defar en même temps coordination entre ñun ak aviation civile pour ñuy mën a xam nan la avion yi di naawee ak nan la ñuy kiwee ci kaw. <coughs> waaw aviation civile am na ci wàll parce que <coughs> surtout ñi def contrôleur aérien ñoom seen professeurs yëpp far ay waa aviation civile loon ñun militaire dañ leen jox rek la partie militaire dañ leen jàngal nan la ñu nekkee chef ci armée mais li si des si liggéey bi li technique li waa aviation civile ñoo ñëw defaral leen ko. Je me nomme le sergent Abdoul Aziz Nia. Je suis le major de cette promotion, la huitième promotion brevet élémentaire maintenance aéronautique. Dans cette promotion, il y la promotion, la première promotion de contrôleur aérien, la où j'en fais partie. Euh, Permettez-moi à l'entame de mon propos de remercier d'abord le bon Dieu, mais aussi le commandement de l'école de l'armée de l'air ainsi que tous mes encadreurs. Je remercie également mes, mes promos qui ont pu me gérer durant ces deux ans avec enthousiasme dans la vie en communauté. Je remercie également le corps professoral qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette formation. Dans cette formation, il y avait différentes phases. Il y avait des parties militaires et la partie professionnelle. La partie militaire, il y avait qui était composée de la formation initiale du combattant, la FIC. Après la FIC, on a entamé le CAT1, certificat d'aptitude technique numéro 1. Après le CAT2, certificat d'aptitude technique numéro de l'ensemble qui a formé le CAM, certificat d'aptitude militaire. À l'issue de cette, de cette formation CAM, on a entamé le CIA, certificat d'interarmes. Après le CIA, y avait notre formation professionnelle, là où on sera breveté. Il y avait, chacun a suivi sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'était le contrôleur aérien. Bon, c'était dur, c'était difficile, mais Par la grâce de Dieu, on a pu gérer. Donc ce qui nous attend, comme je le disais, être premier, ce n'est pas difficile. Mais le maintenir qui est, difficile. Donc je prends cette position avec humilité et je remercie pour tout le monde. Et je le dédie à tous tout, tout, tout, tout, mes promos, mes anciens et mes jeunes. Et près, dorénavant, je dirais qu'on a un défi à relever. puisqu'on dit que l'école de l'armée de l'air, c'est la bonne crème, c'est le fruit de l'excellence. Donc, nous serons face à des défis. Nous devrons être en mesure de répondre aux, aux exigences de notre nation. Et on le fera, Inch'Allah. On va servir avec dévouement, abnégation et loyauté, avec sincérité même. Merci, je suis le colonel Alimbaï Guillaume Apollinaire Manga. commandant l'école de l'armée de l'air depuis maintenant deux ans. Il faut bien comprendre que les, les enfants nous sont envoyés ici pour que nous puissions assurer une double formation. Nous avons une formation militaire pure que nous leur donnons pour leur permettre d'être des sous-officiers accomplis et une formation technique qui leur permet, eux, de bien prendre en charge les exigences techniques du métier de l'aviation parce que ce des, des sous-officiers de maintenance aéronautique là, pour la plupart. Et pour cette année, <laughs> nous avons de contrôleurs aériens de tout ce qui est contrôle au niveau des aéroports qui le plan 2025. Donc voici un peu pour cette promotion les spécificités qu'elle avait. <clears throat> Oui, pour au niveau des unités, euh, les techniciens vont un peu armer de maintenance que nous dans tous les escadrons de l'armée de l'air sénégalaise non seulement, également des pays de la sous-région. Pour ceux qui ont eu, qui nous ont fait l'honneur de nous envoyer leurs enfants en formation chez nous. Ils vont donc s'assurer que les pilotes iront en vol avec des avions qui sont sûrs et pourront exécuter leur mission dans de meilleures conditions. Donc voici un peu le travail de la moitié de la promotion. L'autre moitié, elle, aura pour rôle de justement faire le contrôle aérien, c'est-à-dire s'assurer que la circulation aérienne autour des aéroports que nous avons, militaires, est, est sûre et sécurisée. Donc voici un peu les deux bancs que nous avons adressés lors de cette promotion.